merci beaucoup waa Senego ah. maa ngi tudd docteur Fatma Guenoune di njiitu ligue sénégalaise contre le cancer. waaw euh, weeru octobre rose bi moom lañu ñu jagleel cancer wu ween mais fii ci Sénégal ñun dañ ci boole cancer bunt buntu butitu njurukaay euh, suñuy xayma cancer yëpp ci Sénégal ñu ngi ci fukki junni euh, ak benn ak lu topp ci nouveau cas de cancer par an. te ñu ngi am euh, juróom-ñaari junni ak euh, juróom-ñaari téeméer ak lu topp ci euh, ñiy faatu ci cancer mais soo jëlee ñaari cancer yi nga xam ne ne ñoo raw gàddu bi muy cancer bunt bu titu njurukaay mi nga xam ne ne ñu ngi ko xayma ci 1950 nouveau cas donc muy junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukki nouveau cas te mille plus de mille trois cent jigéen dañ ciy faatu chaque année donc muy junni ak juróom euh, ak ñetti téeméeri jigéen ñuy faatu euh, ci canceru bunt butitu njurukaay ñaareelu cancer bi nga xam ne ne bokk na ci cancer yi gën a bari muy cancer wu ween ñu ngi ci mille euh, huit cent dix-sept nouveau cas avec cinquante 951 décès par an mooy junni euh, junni ak euh, juróom-ñetti téeméer ak euh, juróom fukk ak juróom-ñaari nouveau cas te juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn jigéen dañ ciy faatu chaque année donc loolu moo waral ñun ñuy gën a di xeex cancer du jigéen. waaw loolu moom nemmeeku nañ ko. que xale yu yu ndaw ñu ngi am cancer ween euh, mais problème bi pour ñu wax wax la lim bi xam nga waa kër docteur dinañu constater mais comme ba léegi suñu registre de tumeur euh, fonctionné gul na ko waree parce que hôpitaux Sénégal yëpp amuñu registraire buy enregistrer les cas fu mu nekk ni da euh, hôpital Dantec moo commencé di xayma cas yi mais loolu nag bés bu ñu amee ba ñëpp commencé di enregistrer dinañ leen jox chiffre yu exact mais ñun ci suñu consultation yi dañuy nemmeeku ne xale yi ñu ngi am cancer. man maa ngi tudd madame Bakayoko Oulimata Sagna man maa nekk infirmière chef de poste bu maternité bu Grand Yoff. poste de santé bi nag dafa am particularité mooy poste de santé la boo xam ne dafa amaale salle d'accouchement maternité lépp lañ fii def lépp loo xam ne. Euh, kii santé de la reproduction yëpp dañ ko si dañ ko fii def waaw. non non c'est pas la première fois ñu koy ñu koy ñu koy organiser parce que comme district nord bi ma bokk chaque fois dinañ am ay partenaires yoo xam ne dañuy dañuy dañuy may ay journée yoo xam ne poste santé bu nekk da nga si war a am benn journée waaw. octobre rose aussi tamit bu fekkee district nord bi ma bokk man journée bi le 30 la. man maa war a tëj parce que ouverture bi ñu ko defee centre de santé bu parcelle léegi le 30 octobre fii la ñu war a tëjee parce que population bi aussi boo xoolee man sama population maa ngi si 74 mille et quelques habitants moo gën a sama population moo gën a vaste si si district bi yëpp moo tax ñu ne comme dañuy tëjee oubien centre de santé bu parcelle ñu tëjee ñëw Grand Yoff ñu def fa fermeture bi mooy clôture bi mooy le 30 octobre waaw mais aussi aussi tamit comme gig yi dafa nekk sans partenaire boo xam ne bii mooy cinquième édition muy def fi ay journée de consultation gratuite depuis 2016 maak moom day ñëw fii chaque année mu ñëw def benn festival boo xam ne au moins nañ jël 15 jours yoo xam ne macha allah Grand Yoff moom fépp lay laal. Euh, si euh, xam nga du benn euh, yëf rek mooy joxe cancer li tubaab di wax facteur favorisant surtout cancer wu ween. plusieurs facteurs favorisants mooy joxe cancer bi am na facteur endogène facteur endogène bi nga xam ne ne loolu ci nit kilo bokk te kenn mënu ko modifier mooy ne jigéen xale bu teel a gis baax te amaguloo fukki at ak ñaar wala jigéen bu yéex a bàyyi fóot après cinquante cinq ans cancer bi daf leen yàpp loolu ci facteur endogène yi la euh, bokk li nga xam ne ne Euh, ci yeneen facteur endogène muy hérédité bi yow nga bokk ci giir bi nga xam ne ne euh, euh, cancer daf leen yëpp donc dafay teel a dal ñi bokk ci giir boobule am na yi nga xam ne ne jigéen bi nga xam ne ne dafa yéex a sëy yéex a am doom après 30 loolu cancer bi daf koy farala a jigéen bi nga xam ne du nàmpal doomam loolu cancer daf koy faral a yàpp léegi xale yi jigéen ñi dañuy bëgg def comme tubaab yi bañ a nampal seen doom yi alors que nampal boobu dafay aar daf leen aar ci cancer ween mais dafay aar xale yi ci ay feebar donc euh, allaitement maternel li nga xam ne ne dañ ko war a def yooyu ay facteurs favorisants la donc euh, yi nga xam ne ne nag tamit non modifiable obésité jigéen ñi nga xam ne ne euh, dañu dañu am yaram parce que loolu la dafay joxe cancer parce que obésité boobule dafay favoriser li ñuy wax hyperœstrogénie te l'hyperœstrogénie est un facteur favorisant du cancer euh, am na ñi nga xam ne ne euh, jigéen ñi bàyyi fóot bëgg euh, xam nga soo demee ba nekk ménopause c'est assez désagréable pour les femmes dañu am ay traitement yu ñuy faral di bindal jigéen yi te traitement yooyu le xam nañ ne dafay joxe cancer am nañu firnde ne dafay joxe cancer li ñuy wooyee traitement hormonal substitutif amoon na ay jamono sax femme sénégalaise yi commencé woon na di ko laaj docteur yi ñu bindal leen ko pour euh, désagrément wu ménopause loolu le moo tax ñu leen di wax ne yooyu le buñ ko faral di jël parce que euh, moom euh, garab googu la dafay joxe cancer donc am na yeneen facteurs yi nga xam ne ne ñun mun nañ ko modifier loolu mooy lekkin bi parce que sénégalaise bi léegi ñun sénégalais dañuy soppi sañu lekkin dañu foog ne ne suñu waree wane dañu am alal dañuy lekk yàpp lekk graisse lekk lu saf suukar lekk lu saf xorom yooyu yëpp dafay joxe cancer donc war nañu mun a lekk euh, ay fruits et légumes lekk benn 100 grammes par personne de viande par semaine loolu la viande rouge loolu la dañ ko war di ko xam parce que facteur favorisant yi may wax ni mooy joxe yeneen maladie cardiovasculaire mooy euh, les maladie chroniques lu ci mel ni diabète lu ci mel ni hypertension yooyu lee ci lekkin bi la donc am na facteur yeneen cigarette si ah loolu moom facteur favorisant dafay dugal loxoom ci cancer euh, yu bari soo cancer boo lim rek cigarette si dugal na ci loxoom sàngara si dafay dugal loxoom ci cancer bu bari donc te ñun euh, maa ngi ñaan sama mbokk jigéen yi ñëpp sax parce que yeneen góor cancer dafay dal ay jigéen ay góor donc war nañu mun a di lekk ay fruits et légumes li ñuy wax juróomi fruits ak légumes par jour su may wax fruits et légumes boobu par jour waxuma leen ñu jël di lekk fruits yi jóge bitim réew ñun Sénégal am nañ fi ay fruits yu ñu war a mun a consommer ah, bu njëkk ba ah, waajur yi ñoo euh, changé comportement alimentaire yi bu njëkk ba sa doom da nga koy jox mu jënd ay solom ay buy ay siddéem mais léegi su xale bi di dem jàngi école yaa ngi koy jox ay euh, saucisson ay pain fromage yu kenn xamul te loolu lekkin bu ñu soppi la moo tax cancer bi gën a bari ci askan bi donc ñun ñoo war a bàyyi soppi dellu ni sañu maam yi doon lekkee ñu lekk ko parce que période boobu cancer bariwul woon parce que lekkin bi dafa selloon te li ñuy bay la ñu daan lekk te bay li ñu daan bay daanul woon engrais am engrais chimique daanu woon am pesticide donc euh, loolu tamit euh, foog ñu def ci jigéen fu mu nekk dans la journée mun nga tàggat sa yaram soo nekkee sa biir kër mun nga tàggat trente minutes par jour soo nekkee di fóot di paase di fobeere jaabante ci biir kër rek tàggat yaram la soo ko defee 30 euh, euh, minutes lu dëgër dina la aar ci cancer. message bi may lancé jigéen ñi mooy na ñu jege kër doctor waaw parce que ñun fii tant que lu la metti doo ñëw hôpital loolu la ñu war a bàyyi kër docteur moom waroo bàyyi ba ba ba dara di la metti nga ñëw foofu sinon day fekk c'est trop tard. da nga war a ñëw di saytu sa yaram surtout cancer du col bi ñuy wax nii ak cancer du sein mu ngi faa faagaagal jigéen ñi waaye loolu mën nañ ko éviter bu fekkee teel nañu dem kër docteur ñu saytu seen yaram xool seen wérgu yaram waaw man loolu laa kii man man damaa contre ñi nga ñi nga xam ne dañuy ne su ma demee hôpital dañ may wax sama sama jàngoro te su boobaa dama man dama ragal mais nga teel ko xam faj ko mu gën ngay toog ba euh, mu mu nekk stade boo xam ne kenn du ci mën dara wa ilaa sa xaalis da siy jeex ba pare doo doo ci doo ci am lu nga si bëgg waaw waa kay léegi di si profité aussi si journée bii nii comme gig yi may na ma ko nii parce que man sama journée le 30 la woon mais comme gig yi may na ma la 16 bi ma am deux jours si kii mois d' octobre du ma yàqal dara parce que population Grand Yoff moo vasté noonu profité naa tamit tey maa ngi def vaccination xale yi xale jigéen yi nga xam ne ñu am 9 ans ba 14 ans yàpp 14 ans bàjjenu gox yaa ngi sensibiliser ñu ngi def vaccination 9 ans ba 14 ans mooy maanaam vaccin boo xam ne moom mooy aar xale kii si xale jigéen yi si cancer du col de l'utérus comme sama tata Fatima lu mu ko waxee rek waaw vaccin bi wóor na amul benn problème waaw man mii sama doom bu am 9 ci ci ñàkk yu njëkk yi laa ko ñàkk wax dëgg neex yàlla amul benn problème waaw waa kay waaw merci beaucoup loolu le maa ngi koy rafetlu parce que euh, Guigui du première fois mu koy organiser euh, gu euh, Guigui mooy artiste bi dëgg jëkk dugal loxoom ci porté combat wu contre le cancer mu porté ko ci biir goxam loolu déjà maa ngi ko ci sant di ko ci gërëm Euh, moom li mu njëkk tàmbali mooy di sensibiliser euh, euh, ay femmes yi ci facteur favorisant yi ak facteur protecteur u cancer u ween yeeg bunt butitu njurukaay mais moom muy organiser ay dépistage te saa yu koy organiser daf ñu ci boole donc moom ah dafa vraiment wane na engagement am te loolu la saa yu ñu ooyee foog ñu ñëw taxaw buggee ko ci dépistage bi waaw man li may lancé jigéen ñi góor ñi mooy ne ne euh, weeru cancer bi euh, nit yi war nañu mun a euh, ku am ñeent fukki at ak lu topp def sa mammographie nga jaar Ligue sénégalaise contre le cancer jël sa bon ron rose nga dem defi sa mammographie de dépistage jigéen ñi xale jigéen ñi tàmbali ko ci 20 ans muy euh, wala jigéen bu gisutul règle war na tànn benn euh, jigéen buy gis règle su bàyyee euh, su gisee règle am ba pare war na làmbatu ween làmbatu ween boobule soo ko defee daa gis sa coppite buy ñëw ci sa ween te mun nga soo tàmmee di làmb sa ween li fi nekk te nekku fi woon soo ko ci dajee daa dem kër docteur ñu seet la donc te maa ngi pour protéger les les filles contre le cancer du col de l'utérus parce que cancer boobule mooy cancer bu njëkk donc maa ngi ñaan góor ak jigéen euh, ku am doom bu am juróom-ñeenti at nga vacciner ko ci euh, vaccin bi ñuy wooyee euh, contre le human papilloma virus ñu ngi ko dugal ci programme élargi de vaccination waruñu ko ragal day liñ ci wax nag bari na mais loolu yëpp ay wax la man xam naa fi ma teg sama loxo vaccin boobule ku ko vacciné daa daa aar sa doom euh, ci cancer buntu ci njurukaay